rien à prouver à un Sénégalais ndax yoruma xaalisu kenn kenn dundaluma kenn yoruma lépp lu ma lijjanti maa lijjantil sama bopp lépp lu ma lekk maa liggéeyal sama bopp donc loolu moo ma intéresse maintenant de l'autre côté ñu ñëw ci député assemblée national ñii député assemblée nationale yi nga xam ne ils nous ont réclamé la guerre ñoom dañu déclarer guerre guerre la ñu déclaré ils ont déclarer la guerre aux Sénégalais parce que nee nañu dégg naa ku mel ni Abba Mbaye mu ne ñoom lépp loo xam ne passé nañ ko fële nga xam ne mooy seen dialogue politique boobu dinañu fexe lépp lu ñu man lépp lu ñu man pour passer ko ñoom dinañu passer tout ce qu'ils ont discuté à la dialogue politique mu ne bu yeboo ñu wooyee leen dealer bu yeboo ñu wooyee leen sàcc bu yeboo ñu saaga leen mais moom ils von passer tout ce qu'ils vont passer là-bas à la dialogue politique ma bëgg leen rek ngeen xam ne sénégalais yi ils nous ont déclaré la guerre parce que boo nee man dinaa passé lépp luñ fa indi muy dëgg di fen parce que xam nga mënoon naa ràññee ne lépp loo xam ne mooy dëgg buñ ko xoolee saytu ko muy dëgg di yoon dinañ ko passé mais waxul loolu yëfumaa tey la def gat sa gat sa nee na lépp lu ñu waxtaanee ñoom ci dialogue politique bi dinañ ko paase donc ñun tamit ñu ne leen lépp loo leen bax dinañ ko ngeer dañu bëgg yéen tamit nga xam loolu rek lépp loo leen bax suba ba guddi jot xam leen ne ñun tamit dinañ ko ngeer incha allahu rabbi loolu pour ngeen xam vous nous déclarez la guerre tu déclares la guerre à quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre donc xam leen loolu vous n'avez rien compris vous n'avez pas compris que cette jeunesse sénégalaise est éveillée te kenn mënu ñoo nelawalati déedéet jeunesse sénégalaise bu bees bi kenn mënu koo nelawal c'est une une jeunesse déterminée éveillée et prêt à faire face loolu mooy dëgg on est prêt à faire face le président Ousmane Sonko il ne sera pas sacrifié loolu bu ñu leen ko waxee rek gëm leen ko gis nga ni ngeen tëjee Karim Wade jéem a tëj Ousmane Sonko mu tëleen ngeen tëj xalifa Sall jéem a tëj Ousmane Sonko mu tëleen billaay wallaay tallaay noonu ngeen di éliminer Khalifa Sall éliminer Karim Wade te di ngeen jéem a éliminer Ousmane Sonko mu tëleen loolu je peux vous rassurer que Macky Sall sax xelam mi ngi ñaaw ci loolu ne mbir mi ah dama ko tudd rek waaye nekk na mbir mu ma jaaxal Macky Sall tey boo ko nee lan moo la gën a tere nelaw tey ci Sénégal dina la ne Ousmane Sonko mii ma bëgg a xañ candidat moo ma tere nelaw et c'est de bonne guerre parce que enjeu yi ñoo rëy pour ñoom ma wax leen ko léegi. parce que ay nit yoo xam ne bi ñu leen tegee ci pouvoir bi ba léegi li ñu détourné ëpp na dix mille milliards dix mille milliards ëpp na ko Macky Sall ci fonds Covid bi rek mille milliards presque la ñu détourné. parce que 1000 milliards yooyu ñu laaj ci fonds Covid bi ñu jox leen ko dépense wuñ ci plus de wala cent milliards maximum Ablaye Diouf Sarr mii di am fit tey ne dey nekk candidat présidentiel fu mu jëlee xaalis fa la jëlee ci détournement fonds yooyu fonds Covid bi il détourne notre argent ces mêmes bandits la ils viennent avec cet argent ils se présente comme candidat présidentiel loolu Sénégal rek la am dans un pays sérieux toutes ces personnes auraient dû être en Mais comme Sénégal, ce n'est pas un pays sérieux. Et les institutions ne sont pas sérieuses, ni protégées. Donc, imbécile yu mel nii saa bu ñu jógee rek dañuy nekk candidat kenn mënu ci dara mais dama bëgg a rassurer waat doomu sénégalais yi ne mënumaa xañ kenn doon candidat loolu du sama capacité mais je peux vous assurer ne je ferai tout ce que je pourrai dans ma capacité bépp doomu aadama bu taxaw ne dafa bëgg a nekk candidat présidentiel li ñu xam ci yow yëpp de A à Z ba nga juddoo ba joon si yàlla tey buñ ko amee dañ koy teg ci kaw table donc loolu laa leen promettre ci coon ña incha allahu rabbi ñu pre ñu promettre leen ko ci Anta Babacar Ngom ñu promettre leen ko ci Pape Djibril Fall ndeysaan moom daanaka faatu na ndeysaan te juddoogul waxoon nañ ko ko quand tu es devenu candidat tu es prêt tout sois prêt tout dinañ leen ko defal ci Ousmane Sonko defal leen ko ci Malick Gakou defal leen ko ci Déthié Fall ah defal leen ko ci Tata Aïda Mbodj ak keneen ak keneen bépp sénégalais bu laaj réew mi dinañu jël lépp lu ñu man ci yow ñu teg ko ci kaw taabal bi ñu def ko ci Khalifa Sall def ko ci Karim Wade voilà e rien nag rien ne nous arrêtera pour li may bañ mooy ëllëg ak nga toog fi nga ne diw luubal na rek ñu ne ah lu tax nga ne Karim sàcc na lu tax nga ne Khalifa lu tax nga ne diw sàcc na lu tax nga ne diw rey na nit lépp lu ñu wax te ñu am ci firnde dinañ ko wax malgré mën nañ cee bañ a d'accord parce que Macky Sall c'est un escroc mën nañu bañ a d'accord ci lépp mais li nga xam ne am nañ ko ci preuve dinañ ko teg man de man seen en tant que sénégalais mën naa leen wax lii j'étais gis nga man daanaka affaire Karim Wade presque moo ma dugal ci politique gu Sénégal tuuti dama mas a taxaw ci sama bitigu benn xarit mi ngi may dégg ñuy waxtaan. sama xarit boobu PDS bu mag la PDS bu mag mu ñëw ne ma waaw Karim nangam nangam Karim fii Karim fële ma yëngal sama bopp ma ne ko man de sama xel dafa tey ci Karim mu ne ma lan. ma jox ko ay explication ak ay firnde mooy ci bato ba bato ba ñu loué woon noonu ci semaine eh, affaire Afrique boobu ba pare autoroute yi autoroute à péage bi ci taaw Ablaye Wade la autoroute surfacturation autoroute à péage bi ci taaw Ablaye Wade la woon parce que dañu gis autoroute Maroc gën a gudd gën a sori ak montagne yi toj autoroute Sénégal gën a gàtt gën a yomb tabax mais c'était presque sept fois le prix de celui du Maroc donc y problème voilà y a problème donc yooyu yëpp ak yeneen ak affaire Frank Timis bi original signature bi ab Ablaye Wade moo ko signé woon ak Karim on l'a ratifié bi Macky Sall ñëwee la ñu def décret bi pour contrat bi mën a demaat na fi donc loolu tamit nañ ci jox Karim crédit parce que dégg naa Karim dafa bañoon ñu signé xawma lan décret bi je ne sais pas quoi et y des raisons je ne sais pas quelles sont les raisons donc lépp lu ñu am rek ak ku mu mën a doon dinañ ko def ci yoon ci dëgg ak Ousmane Sonko ndax Ousmane sonku tamit dégg nañ fi ba mu nekkee agent impôt et domaine vraiment ba muy def ay saytu di def ay inspection am na benn homme d'affaires bu mag bu mës a def cinq cent millions ci sac jox ko nit ne ko demal joxal ma ko Ousmane Sonko ñu yóbbu xaalis bi ba ci bureau Ousmane Sonko ba mu jëlee xaalis bi daf ko jox caissier bi ne ko na ko versé ci compte état bi moom du lekk xaalisu ger am na aussi sax benn om d'affaires bu ñu masane moom mel nam Ousmane Sonko benn jour dafa ñëw di ko defal euh, kii fiscal di ko audité bi mu koy audité ndogu bi mu jotee nee na ba ñu tegalee Ousmane ndogu Sonko ndogu dafa ne non non non munul ndogoo ci kër gi noonu parce que conflit d'intérêt la dafa génn ba ci biti dem ndogu ji ba pare après mu ñëw continuer liggéeyam donc ak yu bari donc képp ku fi daal def Sonko Karim Khalifa diw diw diw képp ku fi nommé boppam comme candidat présidentiel on viendra et on amènera la vérité sur la table loolu nag comme ni américain di wax euh, diw laa bëgg sama boppam la gënal du bañ naa la Sonko nag man mooy sama mbër donc du tee du ma wax dëgg ci moom dinaa wax dëgg ci moom moom laa gëm parce que bi ma saytoo moom laa gis ne moom la loxoom set ba fii mais loolu mën naa bañ a nekk moom dong léegi nañu xaar comme candidat yi bari nañ xam nga Amadou baa ngi ñëw Amadou Ba voilà ñoom Diouf Sarr te li ñu luubal ñun ñëpp xam nañ ko bu dee seen loxo set na dinañu xam du dëgg parce que Amadou Ba ni mu dëkkee xam nañ ko te c'était un fonctionnaire d'État léegi am amam ak euh, dëkkam ak yi nga xam ne mi ngi koy dund yëpp yooyu yëpp bu ñu ñëwee on mais nag gàtt sa gàtt sa la pour bu kenn ñëw fii nag di victimiser wu waa Tunkara yow xam nga yow suñu xarit nga waaw bu laal ci kii bu laal ci kale loolu duñ ko def we not doing that we not doing that we not ñun dañuy génn wax dëgg ci senegal parce que bëgguñu erreur bi ñu dal